jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar fu waay nekk rek si réew mi ak si bitim réew tey mbokk yi fii ñu jàkkaar xam ngeen ko muy stade parcelle stade bi Safi bëree na fi stade bi Noiro bëree na fi stade bi soq bëree na fi bëri nañ daanaan yoo xamante ñi ngi ci biir làmb bëri nañ fii ci stade parcelle bi tey le 28 décembre tombeek anniversaire u Modou Lo mu fiy def open de presse c'est la deuxième fois defoon na ko fi bi muy bëreeg Ama Balde te fiila la woon ak Ama Balde ma juumul waaw ok fii la bëre woon ak Ama Balde Mbapat ñuy bëre arène mu ñëw def fi open de presse bi tey nag c'est la deuxième fois mu defaat fi open de presse am tombeeg 28 décembre muy feete BSDM waa Pikine nag def nañ seen open de presse yaakaar naa ne jour boobu presse bi ñëw nañ liggéey si jàmm ñibbi si jàmm ak organisation bu jaar yoon pour l'instant nag lii ñu gisagut jaar na yoon xaw ma nag bu demee ba presse bi ñëw. kii nag mooy Moustapha. doom oh. parcelle Moustapha doom PA bi maa ngi siyaar baax di la bëggee. maa lay fay Modou Anta. <laughs> waaw di rafetlu sa teewaay. Uh-huh. yow moom yaay Modou Anta Modou Anta lamb nga. sans frontière. Modou Anta lamb sans frontière ñëpp nga yemale. macha allah di wax tey bis yi boo gisee ni nga ko waaje waaw parcelle waa yëpp. ñu ci woo ñëpp ñaari zone yi zone bi C zone bi mm-hmm. di ci woo vingt six unité di ci woo ñëpp ci jàmm ak salaam. Mm-hmm. di wan ne bis bi bis bu ñu ñor la. Mm-hmm. lamb ji dafa am lu ci laxasu mais bëgg nañ lamb ji xam nañ. bëgg ngeen làmb ji xam ngeen xam nañ ok bu lépp dama tey moo dañ koy soirée joyeux anniversaire macha allah waaw tey xam nañu feete fii dag gato bi <laughs> waa Pikine dina xam ne tey ñu doon ñoom dañoo bokk ñu ñoom dañoo bokk école rek mais bokkuñu classe récréation moo leen di boole ak sëñ Fallou moo ñu boole ok ngeen am xale bu oos xale bu ñime bu mën a bëre bu am fit bu am technique vigilant ba pare le jour si nag waa Pikine yaakaar ko lool ngeen bu ko andi ko nan ngeen di waaje ak moom ñu ngi yaakaar ay mag ñoo leen dee ñun ñoom lu ñu nar xam nañ ko. bu amee sifflet waaw ah. lu ñu nar ñoom xam nañ ko. da nga yaakaar dañoo nekk ci ay nax. dëgg la ma wax ñun dañoo naxantewul bu amee sifflet dinañ ràcc dinañ xaar ñoom ñoo bëgg. ok dama yóbbu loolu laa yóbbu déedéet dama yóbbaale naanaa sax yàqatuwuma dara. Moussa Ba li ngay wax nag yàqatuwuma dara liñ nar xam naa ko. du ma dàqi benn mbër tollatuma foo xam dañ may cokkaas may daw di dàqi mbër comprendre nga damay taxaw xaar ko bu ñëwee ñu bëri bu xeexee ñu xeex mais du taxaw di dàqi kenn ndax laamu ji daf ma ñor. le premier janvier li ñu yaakaar ñoom lu ñu yaakaar mu ngi suñu bopp ñu duñu ay ngaaka. Boy Niang jël naa ko mu ne ma euh, euh, bu doon tournoi la moom bu bokkee moo day génn. waaw ah, dégg li ma la li mu bëgg xam nañ ko. lan la bëgg. cokkaas ci kaw ñu daw dàq mu song daw doo tàgg daw tàpp ko dem ci loolu xam nañ loolu Modou loolu da ngay fooyee ñun dañuy yóbbu lowal deuxième troisième dañuy teg naanaa làmb lañ lay wax li ngeen nar permanence Diop liñ lay wax ak ñoom ñëpp ñun xam nañ ko. <laughs> baal sama ñun seeraat nañ bu baax liñ leen di li ngeen nar xam nañ Modou mi ngi waaj boo xoolee état bu nekk. Uh-huh. xam ne booy ni ñu mel ci moom booy nii nga ci tribune kenn. waaw waaw Modou jàmm ak salaam la seq ak ñëpp. Uh-huh. nekk nit ku baax bu amee bës parcelle waa ñoo am bés. jërëjëf ñu ngi ñaanal incha allah le premier janvier. jërëjëf ci parcelle waa yëpp ñu génn comme ni ñu génnee bi passé ci jàmm ak salaam ñu dem jëli ko ñëw bu sax jaaxle. jërëjëf kooku ay Moustapha waaye nag mbokk yi président ngeen jàkkaar loolu nii kii yaakaar naa ne deretu parcelle mooy daw ci yaram parcelle rek a ko ñor mais Modou Modou Ahmadul Khadim maa lay siyaare baax di la bëgg wér wér wér waaw di kontaan ci liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy def mhm. parce que vraiment euh, lamb li ma wax bërki dem rek euh, maa ngi koy wax euh, Fadam de mhm. ma ne ko génération bi dañ leen war a delloo njukkal parce que yóbbu ngeen lamb fu kawe macha allah donc ñu leen di ñaanal wér mhm. ñaanal leen seen liggéey gën a barkeel yu mhm. gën a lancé appel tam écurie yi ñu am collaboration ak yéen mhm. ñu defante ak yéen collaboration macha allah donc nag comme li nga gis rek mhm. parcelle saa suñu organisé dañuy bëgg a lu kenn deful parce que tey ji boo xoolee dañ taxawal benn comité d' organisation pour open presse bi man maa ko jiite di président bi ànd ceeg fans club yëpp moo tax tey jii boo gisee placement bi ak ni ñu préparé nii xam na ni yàgg nga dem open press mais gisoo open press moom. Mhm. donc ñu ngi ñaan yàlla ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah rabbil alamin di woo parcelle loi yëpp ak 26 unités yi. Mhm. ak am di jàmm moo di supporters yi fans yi ak ñi bëgg làmb mhm. ak autorité yi yëpp ñu ñëw. ànd ak ñun communion fête dina fi am dinañ ànd ak ay artistes dina am animation. Modou dinañ ko xool mu box wax ak nit ñi bégal nit ñi ñu continuer noonu le premier janvier mu duma waaji allah. ok mu duma waa ji daan ko ñibbisi mais ñoom dañu am slogan bu bee sàkk golo wàccal sa moroom yéeg àdduna potu ndaa la da ngay naan jox sa moroom mu naan mu ne golo gi bu bañee ñu dagg ay xiir caw ko pot bi bu ngeen bañee ñu foqati ko jël. mais nag golo gaynde du ñu fo de. <laughs> dégg ma nee leen golo gaynde. waaw du fo. gaynde bu nekkee ci kaw waaw. golo taxaw ci suuf sa ba tal naa ko wàccal gay gaynde ma mu dajal gaynde sibi la am na lu ma leen waxoon ne laan Modou gaynde sibi la jar xupp dàqu ñett mbir ñaari mbir na ci nit bàyyi xel muy yafal màggat ak xupp ab jàmbaar ok doo ci am ndam waaw loolu de la olof wax waaw te làmb ji boo xoolee xam ni jël nañ ko au sérieux préparé nañ ko te dinañ am mbetteel amul lu tax leen mbetteel waaw que dañu jàpp ni ñi ci ànd ñëpp ay xale lañ boo xoolee Rock Énergie ñëpp ay borom karaw ñu écrit boo xam ni président bi fa la bëre mhm. fa la nekk ba nekk euh, bëre grand combat mhm. fa la nekk ba nekk secrétaire général fa la nekk ba nekk président wëral écrit yëpp doo ko gis mhm. donc nag Modou Sarr waaw waaw incha allah boo xoolee ñoom Modou Sarr ñoom ñëpp a ngi nii président fan club bi ñoom ñëpp a ngi nii ñii nag dama leen di gërëm waaw Lo Modou Anta bi ngay doon doon gone gone la ci commencement ba fu mu yegg si bu méttee génération xale ñu ngi ci wetam bu lu mu mënti am bu neexee ñu ngi ci wetam mm. te xale yi xaar xaaruñu móodu ci dara waaw ku ci ne ñu ngi toog di xool nu mu gën a rafetee organisation bi nañu yokk lii nañu def lii nañu def lii donc loolu ab cant la mm. di ñaan nag lamb ji Parcelles Assainies yi ñu bañ a xaar ku leen may billet wala dara na ñoom ñëpp rassemblé wu waaw parce que Modou war na mën a jaral ni ñu dagg ay billet cinq mille wala billet dix mille mm-hmm. defal na parcelle lu ne may lancé appel tey dinaa ko wax waa conseil municipal bu ñu ñëwee fii. Hmm. stade bii. waaw ñu tuddee ko stade Xaragne Lo. macha allah parce que doomu parcelle la boo xam ne def na parcelle lu ci sport loo xam ne kenn def na yóbbu tur parcelle boo xam ne kenn yóbbu ko fa. Hmm. donc dañuy lancé autorité itam ñoom ñu gën cee jàpp bu baax a baax a baax nga xam ne le premier fête la mais fête la au Parcelles Assainies demain. Hmm. am nañ feu de joie boo xam ni man maa la invité pour nga ñëw def ko direct. fan la ñu ngi koy defee fii ci jardin unité allah feu de la boo xam ni. ci la ñuy combler parce que ñun Modou buy bëre fête la gis nga démb amoon na feu de joie bu mag. waaw tey ci lañ jógee ci li suba tam day amaat beneen feu de joie. bu gën mag boobu. Mm-hmm. boo xam ne tur bi nag lépp la ñuy teg xale yi féete foo waxtaan way du taal pétaar taal feu yi asiko rek ñu gën a doppe suñu mbër. le premier janvier ñu demaat defaat noonu dumewaat ñibbi si incha allahu rabi. jërëjëf kookoy président Moussa Moussa boo paree rek Moussa bu xarañ. ok am na solo. ana ana kii <laughs> c'est sama gaay gis nga posteer yi Modou Lo lan lañ bind fii lu waay waxoon na ko jëfe lu waaye waxoon na ko jë hee problème yaa ngay démarré nag ma ne ko problème yaa ngay démarré nag lu waaye waxoon na ko jëfe laa dégg de waaw booy ñaa waaw taxul lu bëre sa 45 minutes yooyu ngay wax ay den wuure bëre ak lii barke alxuraan ñeme woo ko def ak boo ko defee ma du ma deux minutes ma daal la lu waral lool dama ko mën daa ko bëre ku ma ko sañ sañu bëre daa ko xeex barke alxuraanu karim bërëntaan ak bëre bokkul oh dafa leer bërëntaan ak bëre bo man de maa ngi fii di turbale rek gars yi da laa xool benn par benn parce que man daa mel ne <laughs> gars yi gars yi gars yi daa mel ne dañuy feete tey de gars yi. mais nag eh, bul fàtte ni bul décembre. laay ah gars de fii ay ndagamu gars yi de xam naa ne ay gâteau lañ bëgg a taal fii de gis nga leen gis nga leen ni ñuy installé woo nii ma ne ko gis nga leen gars ni ñuy installé woo nii ma xoolaat. ñii ñoo ngi ni di wàcce cabillon 16 yi ñu ngi wàcce ay 16. eh Moussar Kaay Moussar Kaay bu xarañ. mais mais mais président maa ngi siyaar. ñu ngi delloo jaar doon tey wàccaayu open de presse bi ñu gis ngeen def ci ay innovation booy dékaleel tuuti. Mhm. gis nañ ne lii ngeen fi def yombul. Mhm. am na lu ngeen di waaj. Mhm. ana tey ban wàccaay ngeen amee. waaw comme niñ ko waxee rek xam nga nit moom bu fekkee ne yàlla dafa def ñu def la njiit lépp looy joxe ci àdduna rek dafa ne war a nekk lu rafet parce que bu ñuy wax naa lu dul jàmm jàmm da koo gën fu muy jóge du fa jeex waaye fa mu jëm du fa doy kon jàmm dañoo gënal jamaa ba lépp loo xam ne dañ koy defar rek dañuy ñaan yàlla suñu borom bi yàlla jiital jàmm mm-hmm. comme Modou moom lañ mooy roi des arènes mm-hmm. war nay def innovation chaque mm-hmm. loo xamante si ni tey jii mbër da koy def rek dafa war a xool moom ci boppam mu jiite ko muy doon lu rafet loolu lañ koy digal à chaque fois ñun ñu ànd ak ñun moom li ñu def nii nag warul jaaxal kenn ndax génération xarañ depuis moom Modou bi ñuy mbapat mhm. ba yàlla def ñu toll ci ñu dugg arène mhm. ñoom moom tamit wuñ mhm. ak suñu grand yi baax yi ñoom xaadim nga jege prési ñoo ànd ak ñoom moo tax daanaka ne liggéey bu mel nii du ñu jaaxal parce que ci lañ dëkk ñun à chaque fois ñu ngi tuju suñu roq bu Modou amee combat bu amul combat di def suñuy réunion ngir bisu Modou bu ñëwee rek ñu xefe koo taaral ba képp ku fi ñëw rek yàlla suñu borom defal la jàmm Mm. nga am jàmm ni nga fi ñëwee ni nga bëgg nga man ko fee am mm. ba ak ni ngay ñibbee ñun loolu moo tax ñu jóg nii gis gars yi di ko def nii comme organisation pour mu gën a rafet ok euh, waa Pikine def open de presse golo wàccel sa morom yéeg adduna mm-hmm. potu ndaala da ngay naan jox sa moroom naan mm-hmm. bu golo gi wa bañee mm-hmm. ñu dagg ay xiir caw ko bu bañee joxe pot bi ñu foqarti ko loolu moom dëgg la olof yee ko ndax euh, baat olof moom kenn du ko tuxal waaye nag golo gi ci kaw garab gi dafa gul te dama naan ku yëy ba yëy yexi bukki da ngaa yëy yexi yëykati yex te ku sàcc mbaamu géwal jaay ko ab law bi da nga ba ñëw ci coowul ñetti fan oh. te ñoom waa Pikine wax dëgg yàlla loolu lañ def golo gi nag moom wàccagul ta xiir du ko wàcce <laughs> ñoom daal ñu nekk ci li nga xam ne ci lañ nekk ah. bàyyi ñu ci li ñu nekk ñoom ki ñu yor gëm nañ ko ñu nit ki ñu yor gëm gëm nañ ko ndax yaakaar naa ni hmm. bu ma juumu dégg naa baatu moo Modou mënta nekk roi Modou mënta yegg fi mbër yi mu yegg. Mhm. kon yaakaar naa ni Modou à chaque fois day joxe exemplaire lu rafet ci li nga xam si mooy làmbam. Mhm. ndax moo fi njëkk a taxaw. Mhm. ni man su ma yàlla joxee roi bi. ci gone yi laay dem bëreeg ñoom. te confirmé na ko. moo ni ñun mag ñi ñu nekk suñu biir di boore rek bëri rek dafa doy. kon loolu exemplaire la bu rafet. kon ay moro ay ndaw nag ni ay moromam la toll te jamono ji di bëreel. loolu dañ koy rafetlu waa Pikine nag dañ leen di wax ni leen. ñun li ñu yor dañoo përeegul pour jox ko kenn. jërëjëf te wallaahi li nu ko jox. Hmm. du ay caaxaan moo tax ñu du nu koy du nu caaxaan ba mu jóge ci suñuy loxo. ok dernière question bi le 28 décembre tey. Hmm. di anniversaire u Modou Lo. Hmm. tey bu ma juumul yii ma gis nii. da ngeen ko fee bëgg a defal anniversaire. waa loolu waxuñu ko parce que olof yi wax naan bis du tuuti borom lay tolloo te bët damay wax naan à chaque fois la cay ñuul ak la cay weex dara mënul dem bàyyi morom Modou yàlla da koo booleeg mbooloom moo xam ne si nii ah, dafa yàgg. tey bisam ñëw di anniversaire am dañ koy ñaanal yàlla mu yàgg koo feete dañ soowee incha rabbi dañ koy defal bis bi tey ji bu ñëwee dañ ko ci defaareel feet bi loolu moom moo daan ta tey moom hmm. li ma lay wax rek Pikine xañ na neexan na xaw ma barki démb waaye tey ji tamit sëbët moo lay may ni tey ji parcelle ah. ñëpp dinañ mobiliser wu dinañ génn te incha allahu rabbi lépp loo xam ne làmb ji mi ngi koy laaj ñun ñoo ngi ci ñoom daal nañ pare rek ci jàmm daw na jërëjëf kookoy Moussa bu xarañ maa ngi waaw mais ñu lay ziar loo wax ah li wax mooy ñu ngi waaj comme ni ñu daan waajee rek waaw te xam dinañ wax ne fii benn bukki di fër bëy benn waa ji daneen lëndëm lëndëm bukki fër bëy ay ah. benn bukki du mbaa du ngeen nelaw bu ngeen nelawee fi tool si laamu nelaw bukki bi daa doy de fii benn bukki di fër ñu xamante ne ñu ne ñoom benn jooy fa des ah benn jooy boobu iska jooy loo leen ko dina yomb parce que gis na ne moom ba mu sonalee waa Géejawaay. bii mooy gën a métti Géejawaay dañoo def asos. ñoom Balla Gaye ak jóg ñëw open press la de guerre jàppale ko mu dem daan Boy Niang. waaw ah, mais boobu yéen nag sonal ngeen waa Pikine lool. kenn mënu natt kenn mënu natt kenn mënu natt. dañuy jooy tey bi mooy seen dernier jooy dañuy fomm seen i rankoñ incha allah. Ah. dañuy jooy jooyloo ko rek nax leen. oh kookoy Mor jaajëf Mor. seet xaaral ma waraat ci gars yi kële may seen daa mel ne Pabis de. kële mooy seen daa mel ne pabis la de man lan laa fi gis ni ay mais mais DG DG lu mu yor ni mais DG lu mu yor ni ma ne ko DG lu yor ni ah, ah waa open presse bi de tey ji ma ne ko man de ma ne ko man de Cheikh mii lu mu yor nii open presse tey bii ah baax na waaw mais waaw mais DG Cheikh une minute rek yaa ngi ci liggéey bi mais tey non jël naa ko jël naa Moussa tey organisation macha allah pour l'instant yéen a ngi ci kawam. waaw organisation moom ñu ngi si kawam. yow mhm. gars yi ñëw si dal rek stade bi yaatu na. Mhm. lépp yegg si na. Mhm. président ñëw ñëpp toog xaar président ñëw. xaar président ñëw. mais mais lëndëm lëndëm la gars yi déclaré. waaw ñun duñ béyu kenn. oh béy. Ah. gaynde fu mu sant dëgg booy këram di kaw. laa ilaha illallah. yàlla gaynde gi mooy ñëw. golo wàcceel sa morom yeeg. waaw ah, wan golo. ñun gaynde gi laa lay wax gaynde gi. bu ma àll bi. waaw ah, mais mais mais mais tey. tey organisation bi macha allah yéen a ngi ci di waaj. mais nag waa Pikine keroog wàcce nañ ko ba zéro. waa Pikine. Modou Anta yooyu itam ku juddoo ci bisaab yaroo ci la jaaxal wallaay ndeysaan te ngay xam ne lépp dëgg la ba le ba tey jii nii lii rek confirmation la bokkul wallaay ak bokkul le Modou Anta yoo xam seen diggante ak Pikine ba kañ incha allah le la ñuy tàggoog ñoom mu jeex tàqali koog ñoom ba faw définitivement définitivement jeex mais est-ce dina yomb day yomb de incha allah rabbi fañ jaar lañ jaarat rek booy ñaa dégool kan ci booy ñaa vigilant mën a bëre mën a xeex am doole li ma koy ñaan de na xeex yàlla yàlla na xeex bu xeexee. bu xeexee ñu duma ko. duma. waaw. laa ilaha illallah chef. bu bañee jël mbër ñun ay combattant lañ. ñu mbër mi nii lay génn. waaw. ñun dañu pare ci lépp. waaye gis nga wax ak wax ak jëf. du benn dañu mënee ci wax. mais booy bi day wax di jëf de. kii gisagoo ko. Lac de Guiers dafa daw ponkal liñ ko jox yëpp confirmé wul. kii ponkal buy bëreeg moom da ngay téye ñaari loxo mi sax doo bëgg mu saa yi ñun ay combattant lañ ñun xam nañ fi ñu jëm lii duñ ko solal ku ne lii honneur la waaw li ñu sol nii honneur la ay Côte d'Ivoire jóge ay kii duñ ko solal ku ne mais waa ji foofu la toll hmm. eh, ñun ay wax ni war na lëjal ñun premier lay xam ne Modou Lo njaago këlëkës la <laughs> mu fay daw naa de daw naa de barke sëriñ tey la tey de ah man de tey xaayam ga jege jëlan naa ko kële kële Serigne Ndiaye la Serigne Ndiaye mais man tey Serigne Ndiaye man Serigne Ndiaye xanaa ab Serigne la waa mais waa waa mais DG tey tey ñëwaat ngeen ak beneen anam bu bu bees waaw waaw waaw waaw mhm. ñëwaat ni ñëwee woon rek waaw wax dëgg yàlla ñu ñaan yàlla ci liñ jëm ni yàlla may ñu ndam lu set guy guy guy incha allah Boy Niang numéro 2 lëndëm lëndëm bukki for bay la déclaré de Boy Niang nag ñun moom wax dëgg yàlla respecté nañ ko trop parce que adversaire bu bu sérieux la wax dëgg yàlla waaw day ne lépp dëgg la mais ñun ñoo xam ki ñu wax dëgg yàlla. di ngeen xeex. boo ñëwee lu mu indi fekk dina ko fekk wax dëgg yàlla gënuñu gënuñu mbokk nag bu yaakaar ne moo ñu gën a xel wala ay calcul ak yooyu noonu ëpp ñu calcul de. Ah. combat bi amul lu ñu ciy perte. ñooy roi des arènes moo soxla na ñëw. ok bu ñëwee dina xam lu mu fi fekk. jërëjëf ndeysaan waa waa kër Modou yaa ngi noonu dugal dugal ci biir maa ngi nii jàkkaarloo yow ndeysaan mi ngi noonu mi noonu kii de tey